xoolu sibtu seex Ahmad al-Amin di jaddiil mbekki yoo Ahmadul Amin Sëriñ Baara ya xoolu sibtu seex Ahmadul Amin di jaddiil mbekki yoo Ahmadul Amin Sëriñ Baara yow mi di nit xamee dëgg ak caaxaan kañ borom dëgg kiimaan sëriñ baara maami sëriñ saalu mu seex seydi muxtaar mbàkke kookoy borom kuy bind yor bu ñibbee aljana moo nuy fa bi sëriñ baara cheikh mouhamadou lamin baara mooy doomi cheikh bamba te doomi mbër la te mbër la moom ka daan la cheikh mouhamadou lamin baara maami Serigne Saliou mu Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke giñ naa ne waat naa ne am nga fa buur yërmande rakki Cheikh Mudu Mustafa kii sa xali ku jinne jàpp ramba seytaane mu daadi ba sin kii moo ko am yërmande Cheikh Mamadou Lamine Bara docteur la woon demoon na sax bay dekkal daana doglu kii moo ko jar di màggal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fekk ku mel ni Mama Njaay muy jooro bis bu fanaane jàng ñëpp waaru moo may maam ma ko du ko loo xam ne mëneefu ko may ci gaay di mbaa ci gaay yàlla ma ko du ko moom du lakk fi ak yow xiyaam maam ma ko du ko moom sëriñ baara ko ko may du lakk fi ak yow mal xiyaame fi ak mama ko du kase safara galaas dongu ñoo yom fi moom nanta gax ma dul la miin sëriñ baara moom la nu may siirul ma soon xar baax la feese ba ne góon bàyyi baa kolam ci xarnu bi sëriñ baara baatin ba jaaxal na ka joor maami sëriñ saalimu moo tax ñu jël ko lam ca biir soo ko gisee ma ngay bëngeer ni koy lu mat ci xarnu bi sëriñ baara cheikh mohamadou lamin faj aajo moo sa gën gaaw lu wax boroomam mu ne waaw day fal di fal ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu bi sëriñ baara day wayte jànguloon xaraf te mbandum xam-xamam du sarax moomal arab te man wolof jommal mboolem xarnu bi sëriñ baara sëriñ baara sëriñ saaliw mu seex sidi muxtaar fam na ca maamam yan bu diis niroowul ak boroomu tiis kuy rooti moo di dex gu fees moo mën a màndal xarnu bi seex ma du min baara seen sëñ bala doon ci moom jégle gi jiitu na bi doom mbër mu ko sooru daal di loon meram xajul ci xarnu bi rijaal yi dara jaam bu ne jalañ ñuy sa jaam nërëm nërëm di sa mbaam raamal ko war na xarnu bi yàlla nañ ko may moo tilemiin fegal ko ay bépp noonu ku dégg ñaan gi ne ne amin ndax yàlla naatal xarnu bi bismillaahi maa ngi way kii jara way te jara kañ kookaa di kii may bëgg way sëriñ saaliw mu seex si muxtaar sang ba sëriñ saaliw sa jëmmu ji yow fu mu teew mu mel ni seex si muxtaar ba ke moo fa teew ku Seex Sidi Muxtaar teew kenn du fa réer Serigne Saliou Mbacké sang ba Serigne Saliou yaa neex yal la neex waajur a sopp dal di seex Serigne Saliou bu Seex Sidi Muxtaar Mbacké sang ba